moo fayul samay mag waaye est-ce que hey Eumeu Sène oh mbokku amateur yi mbokk yi làmb tey jii làmb ju doy war la mbokk yi làmb tey ji làmb ju doy war la làmb tey jii làmb ju doy war la mbokk yi mbokk yi làmb tey jii làmb ju doy war la ñu ngi fii nga xamante ni moo di buntu kër Eumeu Sène Eumeu Sène mi ngi wàccaay pour dugg stade. waaye nee naa la gars doomu Pikine Bangoog jàmbaaru Pikine Bangoog doomu pikin Bangoog jàmbaaru pikin Bangoog loolu ñu acci oto bi lu mu ah du ma ko tudd ah du ma ko tudd du ma tudd mu doon du ma tudd mu doon. ndeysaan mbokk yi lamb tey ji làmb ju am pression la ci côté Eumeu ndax Eumeu Sène ba mu fiy jóg dafa am mu mu ba muy géej arène nationale neexul may digganteem ak Tapha Tine tey mu jëlaat xale boo xamante ni xale bu doy waar moo tax mbokku internet Allô Sénégal amati leen bëgte amati kontaan te ci topp gi ngeen topp seen bi safoo gi ak konte gi ak doyloo gi vraiment kenn amul seen pay alors Sénégal bi sonn yéen la lépp lu muy daj ñu lekk taluñu naan tous les équipes de Allô Sénégal maa leen di bàyyi xel nee naa la maa ngi siyaar ki nga xamante ni moom la ñuy wax Mañang kenn du moom vraiment taxawaayam rafet na hmm? waaw ndeysaan le grand champion maa ngi noonu di waaj a génn ama seen a ngi noonu di wàcci ama seen a ngi noonu ma jàkkaar lool ndeysaan mu ngi noonu ma jàkkaarloo ñu koy ñaanal mu ngi noonu ma jàkkaarloo ñu ngi koy ñaanal Eumeu Sène mu ngi sol ferur euh, euh, mu ngi sol euh, faaru mbaamu bu ñu rabal mu nga wékkoo sangoor ya ma nga téye li nga xamante ni moo di ba ay ay ay ay bant kel ndeysaan mbokk yi Eumeu a ngi noonu mbokk internet yi Allô Sénégal le grand champion Eumeu Sène le roi noonu di génne këram fii ci mbaaw wala jëm arène nationale waaye war a daje ki xale bi ñuy wax Sa mbokk amateur yi tey la dimanche 5 mai 2024 fii ci Allô Sénégal Eumeu Sène le roi des arènes Eumeu Sène borom Pikine Eumeu Sène borom Petit Mbao waaye nag Eumeu Sène ñu ngi fii ci këram gii ci Petit Mbao fii nag la fas yéene waajee war a dem li nga xamante ni moo di Eumeu Sène nañu dimbale jërëjëf jërëjëf ndeysaan mbokk internet yi papa ma papa yi ama seen ngeen di seen noonu sol yére bu weex mooy génn noonu kooku mooy papam ñaanal na ko ba pare daal di génn jiitu ne ko toppal sama ginnaaw maa ngi noonu taxaw ci buntu kër gi di ñu koy di xotte ko ay gàllaaj mu ngi ci débat bi maa ngi sotte ko xar fa xuufa yi nee naa la li ma daan waxoon léegi butéel yi ngeen di gis ñuy taf escorte yi escorte bu ci nekk dañ ci bind fam ko war a sotte ko dañ ciy bind bii ci buntu kër gi bii ca buntu arène ba waaye bii ci biir géew bi waaye bii ci cimikaay bu ñu bàyyi dara lépp dañ koy bind ci butéel yi moo tax nga di ko ràññee nga di eh, kenn du ko jaawale bii ci tuus mi mbokk yi laa ëmb seen ngi noonu mbokk yi ngi noonu sol faaru mbaam mbokk amateur yi internet Allô Sénégal Eumeu Sène ngoog Tay Shinger ngoog yi kii taxaw moo daan Balla Gaye de deux fois mbokk amateur yi kii taxaw yi kii taxaw moo daan Bombardier deux fois mbokk amateur yi waaye na la kii taxaw moo daan ki nga xamante ni na la <laughs> la ilaha illallah oh Eumeu Sène ngoog yi def lu ci làmb à l'âge de 17 ans mbokk yi bëreekat baa ngi ndaanaanu làmb jaa ngi xam Eumeu Sène xam ko ci bëree koo Eumeu Sène xam ko ci jom mbokk kii ma taxawal mbokk kii ki ngeen di gis moo bëree Gris Bordeaux deux fois keroog. lii mu dëkk tey moo Gris Bordeaux ñëw taxaloo tey lamb la doomu ndaya mu ngi noonu taxaw mu ngi noonu taxaw papa mi ngi taxaw magam di astu ngom mu ngi taxaw nday ndeysaan mbokku ndaya koy jur mbokk yi ki ngeen di gis mu taxaw noonu koo koy astu boo ko ëmmal seen ndey ak bàyyi waaye nee naa la kooku sol compété bu wax bi ak grand bu beex mooy papaam waaye nee naa la borom kap boobu wan leen ginnaaw mooy la njeng homme de confiance ëmmal seen xale yi ko wër nag ay jarbaat ak ay ay doomam mbokk làmb ngoog ñu ngi ci préparation musique yi mbokk nday koy jur laa ilaha illallah cay làmb mbokk internet yi làmb ngoog làmb la ñu am làmb suñuy sport national waaye làmb suñuy culture waaye ba léegi mbokk yi ñu ngi fii nga xamante ni moo di fii ci Petit Mbao ci kër Eumeu Sène départ bi nga xamante ni Eumeu war na koo déparé nee naa la ak Allô Sénégal dara du leen cópp ruq-ruqaan yéeg yëpp ngeen ko jël won leen ko yéen ñëpp ngeen gis ko ndaxte lépp lu ñu def yene ko tax te gis ndeysaan mbokk yi kii ngeen gis mu sol balaa li kii mooy madame Ngom madame Ngom a ngi noonu dam Ngom a ngi noonu lekkatul naanatul taxawaay bi rafet na lépp rek ngir borom kër mën a am ndam moom ngeen di seen noonu ndeysaan ba léegi Eumeu Sène ñu ngi koy jox ñu ngi jox Eumeu Sène ay mbuus yu weex pour mu saraxe ko ndeysaan jël na ko ñaan ci joxe ko ndeysaan mbokk yi mu ngi noonu Eumeu Sène mu ngi noonu mu ngi yor benn morceau bu xonq mu ngi yor benn morceau bu xonq ci loxo bi ki mu taxawal noonu nee naa la koo koy asu waaye papa mi ngi noonu. boo koy papa yi Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu Sène ak papaam ak magam bu jigéen ñoo taxaw noonu ñu bokk internet yi kookoy Astou Ngom ñoo bokk ndey ak baay waaye ko sol lu weex li kooku mooy papa yi Eumeu Sène Astou Ngom a ngi koy ñaanal Eumeu maa ngi ree koy ñaanal mu koy ñaanal mu ngi mu ngi koy tagg mu ngi koy tagg naa ko demal duma ko daan ko gaynde la nee